jaara mam jaara kenn du mel ni mam jaara soxna jaara mam jaara kenn du mel ni mam jaara bu sa baali soxna jaara mam jaara bilaay walaay loolu dëgg la soxna jaara mam jaara ana sa pey soxna jaara yëngu leen soxna jaara mam jaara bilaay walaay loolu dëgg la soxna jaara mam jaara aca muritoo nanu waajal poroxaan soxna jaara mam jaara bilaay walaay may tàmbaleeti ci Moustapha mi nu waar nee na liggéeyal maam jaara bari nga nee la ki may soxna jaara maam jaara kenn du mel ni maam waaw waaw bismilaahi may tàmbaleeti ci Moustapha mi nu waar nee na liggéeyal maam jaara bari nga nee la ki may soxna jaara maam jaara kenn du mel ni maam jaara muritoo moo defar jumaa jamumaat kër maam jaara la ca tee dal di def daara sogo dem defar jumaa ja mu maat kër mam jaara la ca tee dal di def daara sogo dem donga yaa ngi kenn du ni jam soxna jaara jëkkoon danu daalaaj ñii di yóbbu ñii waaw bu jëkkoon danu daalaaj ñii di yóbbu ñii duubal carte yaa moonu ko muy liggéey bu sell tawel soxna jaara maam jaara kenn du mel maam waaw waaw bu jëkkoon danu daalaaj ñii di yóbbu ñii nekk naa naa looloo waral jigéen ñaa ngay ku nekk naa